waaw loolu famille Adji Sarr ñàkk xam moo tax ñuy wax mm-hmm. ndax procès mm-hmm. du lu ñuy bërte bërte wala mm-hmm. seetlu neex nit wala lu naqare nit pour def ko procès boo xam ni juge biñ ñu ko dégg yàlla moom na ko moo waroon def enquête bi ba mu leer bañ xam mbir mi fu mu yàlla jël ko ba léegi ne amagu remplaçant ci ci dossier Adji Sarr moo nekk premier cabinet cabinet doyen des juges ëpp na yooyu mm-hmm. téeméeri mm-hmm. muy bu fu mën doon mm-hmm. Karim Wade wala ñeneen jël ay at xëy na bii coow lee bëri ndax coow Adji Sarr seqal daa bëri coow am ñu koy coowle ñu koy wax le rek di wax rek waaye tribunal temps temps bu nekkee seen kër mhm. ko temps politicien yi day jël temps mhm. xëy na heure bu ame juge bu bees mhm. bu remplacer Samba Sall kooku mooy oo Ousmane Sonko déglu ko oo waat Adji ñoom ñaar toog def confrontation oo yeneen témoins ku mel ni Ndeye Khady Ndiaye ak ñeneen mhm. ku ne ñu laaj la ba lépp pare mhm. bu boobaa mhm. ca la ñuy taxaw ca baax atte leen ku ne waxaat seen avocat ñu plaidé loolu nag bu dafa war a jaar ci yoon yoon mooy gëstu ki war a gëstu nekku fi dafa dee d'accord dañu war beneen juge bu bees juge bu bees boobu heure bu ñëwee bu ko neexee mu bu ko neexee dossier ok ndax dossier Adji Sarr taxul juge mhm. wala tribunal changé doxin. d'accord Sonko wala Adji Sarr ñoom ñaar kenn ñoom mhm. moomul suñu justice. ok. Mhm. seet luñ bëgg wala luñ bañ yoon day jaar yoonam rek lu léegi nag dégg naa benn wax boo xam ne aussi mënul continuer. mooy. famille Adji Sarr nee nañ ci li nga wax. Mhm. nee nañ Sonko. Mhm. muy dox soxlaam mhm. di lambar lambar yi def lu ko neex. c'est ça. te Adji Sarr tëju bërëb déedéet. lambar lambar di dem baali comme ni ko defee caro. gis koru. di fecc. bu yem parce que moom li koy def leen ko ba pare. léegi kii ko def. dëgg wala dëgg mais di ko téye bërëb di ko tëj bërëb c'est pas vrai si ko mu solo ko njëkk gis ko yëpp mu demoon soirée benn invitation benn xaritam ay anniversaire uh-huh. ñi ñu violé Sénégal bëri nañu dëgg la dañu kenn ku ñu violé mu toog këram lu génn fi déedéet ku ñu violé ñu ne du a tabaski vraiment ku ñu violé waroo dox sa ay mèches yu cher yu jël vraiment. ku ñu violé waroo dox sa soxla dem ak dukki. ñu violé amul eh. mhm. léegi. bu am na war a am gàcce. li nga c'est-à-dire déglu pare loolu c'est important dafa bëgg bopp nit ñi dof dof yi yeewu. Mhm. bu amee ku war nëbbutu mooy kii kii violé. bu moo ko def waaye ki ñu violé lu muy nëbbatu lu muy déglu mhm. seulement mhm. ko seqoon ak ay bandits mhm. seqoon ko ak ay rayfatu nit seq ko ak ay des gens violents saaga ak dóore ak rey ak taal kër jàmbur xëy na ci kaw loolu war nañ ko protéger ndax boo seqee ak ay dof ak ay ñu soxor ño ñaan mën nañ faat sa bakkan ci yeneen loolu taxoon xëy ñu ko nëbb mhm. benn jamono mhm. Mhm. nëbb boobu parce que boobu gars yi dañoo jëfur jëfur complètement fu ñu ko gisoon taxoon mu tëju nëbbatu tuuti ba nga xam ni ñooñu jëfuroon xëy na soit faj wala xëy na xëy na xaw ma bijjoo ñu ngi wax di ñooñu faj dëmm yi. waaw ki violé moo war a ñu jël tëju xam ne am na gàccee. Uh-huh. ndax góor bu violé jigéen. mais pas la victime. ku ñàkk jom la. Uh-huh. góor bu demee bay forcé jigéen parce que góor moo fa doon jigéen. Uh-huh. loolu tax viol yi di ko payer sévèrement ay dix ans de travaux forcés. c' est criminalisé en France comme au Sénégal. Mm -hmm. ku fi violé nit dana rëq sa ndig fukki at tëb ko moo tax it ku ci jël bu dee yaa def di nga jaaxle di nga tiit di nga jëfur di nga dof surtout boo amee ambition di nga ambition jeex ah. kon viol du lu ñu caafal dëgg la kon kiñ ko jiitee moo war mm-hmm. nëbbatu mm-hmm. moo war làqatu. léegi